evening once again, um, dear viewers, to your program Health Link, brought to you every week here in QTV uh, by Dr. Abubakar Jah um, and Maria Masane. Mbokai yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme bi nga xam ne léegi xamee ngeen ko ci Health Link bi nga xam ne semaine bu indilfini nañ ko dee indil fii nii ci QTV man Dr. Abubakar Jah ak Mariama Sane assalamu alaikum, mbaɗigol mbal konton na kobo qtv bumbato mbal falale alla programme o min dalta ka kaali e lokugo lokumi ka fomi health link ga walla naata yalyo bi aldimma uh, mariama sane anik docteur aboubacar dia walla naata ale jambi pour kañi jata kende akachake. yes mariama thank you you see last week we talked about a very important topic which was uh, emergency situations and uh, the reviews were very good people talked to me about it and they were very happy that we talked about that um, today we've come to a new topic and I think it's a very interesting topic um, and it is to talk about how the health system works, how the conventional health system works, uh, what people know as uh, you know doctors and hospitals and pharmacies and things like that, which is different from the traditional. And today what I will do is to try to give a little comparison um, I'm not giving a comparison to, to tell people this is the best way of treating or that is not a good way of treating or that is a bad way of treating, but I'm giving a comparison just uh, because people understand one system. So if you want them to understand another system, uh, there should be a comparison and that is why we are giving that comparison fan yële na li passé euh, waxtaanoo woon nañ euh, su lu jàmp xewee ci mbiri wér yaram naka lañ war a jëflante loolu noonu ñu amoon si nag ndimbal yu bëri ak nit yoo xam ne dimbale woon nañu bañ wan nit yi naka la war a demee mu nekkoon lu euh, ama am interest tey nag dañ dugg si beneen topic boo xam ne foog naa ne lu ama am njëriñ la mooy pour nit yi xam ñun docteur yi naka la ñoo liggéeyee wala place yi faj yi nga xam ne ñun si la ñoo liggéey woo fly place yi faj tubaab su nekkee noonu lañ ko bëgg waxee naka la moo liggéeyee waaye suñu bëggee wax nit yi loolu noonu bàyyi foos ñu am lan lañ naka lañ ko wanee nit yi euh, te xam nañ ne nit yi yàgg nañ ci faju euh, nit ku ñuul mooy ñun suñ faju naka lañ daan fajoo fii nii moo tax ñuy jéem a euh, misaalee faji tubaab bi ak faj yooyu noonu nekkul ne dañoo wax nit loolu du place fii pour wax ne ah, faji tubaab moo gën faji nit ku ñuul wala faji nit ku ñuul moo gën loolu noonu nekkul suñ topic tey suñ topic tey Mariama mooy pour just explainal nit yi lan naka la faji tubaab te doxe pour ñu gën koo mun a understand loolu mooy waxtaan bi foog naa ne ñu wax suñ mbokki Mandinka yi ñu door a dugg nag ci loolu. mbaɗigol yo commin an ah, daltaka ke ñamin dorong bim be kashakila jata kende karola ningal hakili ah, usambo ko ma domanding um, lokum tambila ali ajelenga min kasha olom jata kende karoti nin um, hadamadiŋo ye jankaroo soto be kela ñaamin pour i se faŋo maa koyi bii duŋ na kaca be kela commin na tubaabu karo tubaabu silo ali se a fo ñaamin banko mool mool dalita moo fiŋ silo uh, jaararoo la le bii naata le manke naata le maŋ na pour kaa fo moolu ye ko moo fiŋ siloo jaaroo maŋ beteya bari naata le pour moolu se a faham um, ni tata lopitaanoo to tubaabuwolu dookoo ke ñaamin pour mol sa fa ham do ko ka kenyaming abara kol ko laftale ka fo mol doron ko mo fingol la jararo amam betea nyim bi kacha be kala waleti pour mol sa fa ham doron ko na silo nin tolta ni tata lopitano ton kan na do ko kenyaming anin ka tambinin bundal minna pour un se mol min nata jata kende anyini nsa so to so na nibul Thank you very much. So, so today what I am going to do now is to give some differences or some comparisons between traditional healing and uh, conventional heal healing so that people can just understand uh, what goes on. Um, we all know that uh, in uh, the, the, the, the, traditional healing is individual based. It's only one person uh, who is the main person. So if you, if you want a traditional healer, you hear that there's somebody over there who treats people, you just go straight to that person and then they can, they can help you. But the conventional system is different. In the conventional system, it's a teamwork. It is not one person. So, uh, and, and, and this difference is very important. If you go to the West, where they don't know the traditional system that we are working in, they don't go to a hospital to see a doctor. For us here, you go to hospital to see a doctor. You say, oh, Dr. Ja is working there. I want to see Dr. Ja. I'm going to Dr. Ja. You are not going to the hospital where he works. Actually, what we want to make people understand is that if it was only Dr. Ja in that hospital, Dr. Ja will not be able to treat you. You understand? There are other people that are working with Dr. Ja. So this is one difference. If I was a traditional healer, I'll be only Dr. Ja. I'll go and sit down in my room and then everybody comes in and I can heal them. In our conventional system, that is one difference. So mbokk eh, lu ñoo wax rek mooy ne dinaa leen jox ay ay ay différence yoo xam ne wala wala ay texalikoo yoo xam ne euh, di nga ko mun a amee ci docteur yi nga xam ne mooy comme ñun nga xam ne docteur euh, faju euh, xam-xami tubaab la ñoo use wala ñi nga xam ne nit ku ñuul loolu lañoo ñoo use bu ci njëkk ci différence yi mooy ne pour faji nit ku ñuul ki si kenn la dee di nekk mooy sëriñ bi wala ki nga xam ne moom la ñu wax ne daf dee faj kooku rek moo am importance ñun nag suñ faju melewut noonu man léegi ñu bari parce que ñu ngi miin faju nit ku ñuul yi luñ dee di def mooy ne ah dégg nañ docteur ja rek wala gis nañ docteur ja si tele bi foog nañ ne docteur ja daal moom xam lu moo def yëpp soo léegi suñ jógee dem ci lopitaan bi sax demuñ ci lopitaan bi de ñoom ci docteur ja lañoo dem waaye nag demee wut noonu soo demee ci dëkki tubaab bi ñoom du ñoo dem seeti ne docteur bii laay dem seeti déedéet lopitaan bi laay dem su ma demee ci loppitaan bi loppitaan bi ñoo maa faj parce que docteur ja rek su nekkoon kiram nga dem seeti ko këram ne docteur ja na faj docteur ja du la mën a faj waaw ba daf ko dafa am ñu moo liggéeyal am na yeneen xam-xam yoo xam ne mooy dugg ci biir xam-xamam bi pour mu mun a use loolu noonu pour faj loolu lu ama am important la pour nit yi xam paɗigol yo komin ga falle ñamimɓe kaca kala minte mbi wolom komin ka fo ka mollondirdi nka do ko kenya min lopita do to docteur kam min foten don golom dol bije komi mol dalita a mofing jararo lale dol bije ni boti la suwa kono dorom bayi toli amoy ko docteur jale bije do ka wuli le dorom pour kata docteur ja je ako abuka abuka tama wanyama ako tubabo la banko ka ni tata je ibuka ta komi e kata ya fon tata docteur karle ya e kata lopita no le to lopita no wale kata ke mako ko jara uh, jararo la bari na tara ta doron no mi tata ta ja jaya doron ata doron te jara la no because ate fana ni le ka do ke minil ya londol ka kafunyo puri se sasa tol minil tata lopitano to ninga doron ate doron doron bari ate ate roso tala rote futala am ja la nyanta doctor Thank you very much. The other difference that uh, we, we, we, can, we can talk about is the way that that knowledge is acquired for me to acquire the knowledge that I have acquired, I had to go to several, many, many years of, of, of, of, learning. And it doesn't mean that I am the only one who can get that knowledge. If anybody else went through those years and through that learning, they will get the knowledge that I am supposed to get. And that is the conventional system. In the other system, it is a secret usually that is handed over from one person to another. So, if I know the secret, then I can give it to my son then he can give it to his son and then that is how, how, how that works with our own anybody can learn it anybody who goes and does some research will know why the doctor did this why the doctor did that in the other system no it is handed over it is a secret that is usually handed over in families mbokk yi lu ñu doon wax rek léegi nii mooy ne beneen ci différence nga xam ne mooy ñun suñ fajin ak faji nit ku ñuul mooy ne ñun suñ fajin euh, xam-xam la bi nga xam da ko koo jànga te képp ku ko bëgg a jànga war nga koo mun a jànga ok man balaa maa nekk docteur ay at yu at yu bëree bëri bëri laa toog di jànga nit ki naka la mel ñaata yax ñoo nekk ci yaramam bi yax yi naka la ñoo liggéeyee naka la yaram bi de lu bëree bëree bëri ngay jàng ci yaram bi comme kuy jagal moto naka nga dee jàngee su su xoolee moto bi rek xam na ne moto bi lii mu ngi fa la leen fa ñun noonu la ñoo jàngee ñun faji nit ki ñuul gi nag ni ko xamee mooy ne euh, secret la boo xam ne dafaa dox ci famille bi so yow su nekkee ne yow euh, am nga xam-xam bi nga jox ko sa doom sa doom jox ko doomam muy dox ci famille bi noonu la dee dexee ñun suñ euh, xam-xam demeewut noonu ñun suñ xam-xam dafa mel nii rek kuy defal moto nga dem jànga moto bi naka la moo demee nga toj moto bi ba mu génn yëpp nga nga mun a xam moto bi soo di ko mun a wiis xam lii fan la nekka lële fan la nekka ñun tam noonu lañ xamee yarami nit ki naka la moo doxee ba nga xam ne su doxatut nu mu war a doxee dinañ ko mun a faj mu nekk xam-xam boo xam ne nekkul xam-xami secret xam la boo xam ne ku ko bugg a xam di nga mun a dem jàng ko nga xam ko baɗigol am ɓe fatan fansuwo min tandila mulla commin tol tubabu jararo katumol ka fole ñamoy ka fole mofin jararo e ka fo tubabu jararo ni ta tubabu jararo aka docteur kabir foten doron wolom mo kilin buka karan ako kulo mi ya lon ko ikata le ya karanga te fango min bilorin teng aya ne sanji jama janning aka futabe futala damin amanke ko komin kam mabole keje komin mo fingol ka mo fin jararol ka ke nyami e kam mo fin jararo je ning komin ifaye londo soto ate nyin do ko le no abuka di do la fo aka di a dingol la wol fanan ka didiŋol le la abuka finti abuka finti dimbaya kono aka tu je dorone to bari tubabu silo nin tata je ka karanne sanji jama ite ya karan ñami momo lafta doron pour ka tubabu jararo karan i ka tambate wo bunda kiliŋol le la pour pour moolu ye loŋ nka tambi wo bunda la pour ŋa loŋ hadamadiŋo jato ka tama ñamiŋ akamuta ko ni tata yeke fitati doron ye fita ka muto karan ñamiŋ ntol fanan ka dambi tambi karan buŋol bunda la wala ñaman ka karan fo ŋa hadamadiŋo jato tama ñalong isaje nim momo nata jata kende añini doron nsema doctor? The other difference is um, that what we do is based on facts. So if I am going to treat a person, I treat him based on facts and that is why one of the reasons why I cannot walk alone. So for instance, if somebody has a fracture, to know exactly where, which fracture it is, which bone is fractured, it is not just a swelling that tells me that there's a fracture. I'll have to do an x-ray and see the bone if I cannot see it fractured, then I do not know that it is fractured. So, we base it on facts. Um, the other side, it is based on spiritual beliefs. It is based on something intuition. So, uh, maybe there is a spirit or there is a genie or something like that telling you that this is what is happening and you base it on that. For us, we base it on facts and those facts can be seen by anybody. Even if the patient takes a little while to study. That is why we're doing some of these programs to teach people how their body works so that they can also have an input into how they are treated because it is it is facts that we base it on uh, mbokk yi beneen bu ñoo waxati léegi nii mooy ne um, uh, ñun suñ faju nu mu ak faji nit ku ñuul mooy ne it tamit ñun luñ dee def yépp dañ ko dee weer si loo xam ne keneen ku ko gisit dina ko fa mun a weer keneen dina ko mun a gis man léegi nii su nekkee ne wax naa ne nit dama na ma gis nataal bi gis yax bi naka la damee ku feebar sa si boppam dina ko gisal boppam ne nii la nii nii nii la mel ok so ñun dañ ko dee bees si loo xam ne da ko jànga da ko xam nii la demee keneen ku ko gis itam na xam ne nii la demee beneen side bi nag ñoom secret la boo xam ne xëj na ci jinne lañ ko jëlee xëj na ci ci ci ci ci diine lañ ko jëlee xëj na feneen lañ ko jëlee foo xam ne looy war a gëm rek la nekkul ne loo xam ne danga ko soo demee ci eh, faji fajkati nit ñu bi mu ne la demal génnee rey rey rey rey xar di nga rendi xar di nga di nga wér loolu bàyyi foos nga góom ko rek nekkul loo xam ne ci fact nga ko bees ñun nag ñun bàyyi foos mu nekk bu la benn docteur wax ne man léegi nii nii rek nga koo defee te du la ko mun a eh, explainal nga nangu ko dafa war a nekk loo xam ne war naa mun a toog explainal la ko su la su ne docteur bi ne lii moo la jot olsa moo la jot war na laa wax lan mooy olsa naka la olsa demee naka la mel bay yow nga understand ko parce que moom lu munta understand ase nit yow tam war nga ko mun a understand ngol ɓe fatam fansa do min don di la fatam fansa do na wala comme une tolla do ko tubabu dow silo ning a tara kuwo ku drong doron ka londi kuule toon ñaaye min akam mi faten doron wala comme ning nin kato nata nang jani mba fola ka talen ka sambale ngana talo ka e ka fo mi x-ray ni nga samba ni nga on talo ka e wona talo fo ka itandile ko aka kato itandile isa jata mim fo ngani kato nyin natan sa itandi ala no purate fo yalon ba ni nga tara mo fin silo lam wali ka dobi je ka jinol ka diamu yele dobi je ka je si boto dobi je ka lasta karol ke furu ka walje badin tolla do ko nka londi kule kam mi yalon ko tonyalem waranka anka anka kule londi mi alon ko aka yitandin nale mbuka ke kom kumfanunte ya kam mo fi silo jama jama aka ke kumfanunte ya leti bari tubabu silo mbuka ke kumfanunte ya kam ko min ni sa sa do ngi nata yela yelo jube fo ye samba lab ya jube lab ninga tara kura mesengo bije lab chi um, bachinol bije le ba yitandi la docteur ko ngi kura mesengo le bije sa ja sa long abe borol min dire la komin ka lo ka lo dir ndi fenne kam mi alon ko aka yitandin nale ko ko ne ketani mari la fon sa ma no docteur this is really very important uh, so that people change that perception so that you know in every field you go in every country you go there will be the good people and the bad people if you go to the traditional medicine i am sure there are people who know what they are doing but there are some people who don't know what they are doing if you go to the doctors also there are some doctors that are doing it right and there were there are a few that may not be doing it right so you as a patient if you know what to expect then you will understand what is going on. So, if personally, if I go to a doctor with a headache or with a fever, and the doctor tells me immediately, I just sit down on his desk and he tells me, Ah, you've got malaria. I will look at him again and I say, oh, Well, how do you know I have malaria? Because it is, uh, you, you, are now behaving uh, like a traditional healer. That's not the way you should behave. You should do a test and confirm that there's malaria and see the parasite. So you see it as a fact and know that this is what is happening before you treat it and that is very important lu maa wax fii nii rek pour gën a euh, fésal loolu noonu mooy ne euh, suñu understandee lii su nekkee nii nit yëpp xam nañ naka la mbir yi dee doxee soo demee ci docteur sax nga dem rek wala dem pharmacie rek ñu ne la ah yow ba gannaaw yaa ngi am bopp bu métti wala gannaaw sa yaram a ngi tàng rek ñu ne la malaria la kon kooku noonu defut naka la war a def si ñun suñ liggéey naka war a demee lu mu war a def mooy parce que du naka la moo xamee ne yaa ngi am malaria sax gannaaw yaram baa ngi tàng luy waral yaram bu tàng dafa bëri luy waral nga wëccu dafa bëri luy waral soo war naa def tes boo xam ne nga mu jis ko ak butam mu gis malaria bi ak butam parce que suñ la defalee testi malaria bi dañ dee gis malaria bi jàngoro bi si boppam ak suñ but laab bi dina ko gis ak butam mu mun laa wan ne lii malaria la mu door laa faj so loolu noonu lu am important la moo tax ñuy wax lii nii yëpp lu ñoo waxee li nii yëpp mooy pour nit yi understand nga xam ne foo munti dem di faju di nga understand lan lan moo tax nga dem foofu noonu ak naka ngaay demee foofu noonu maɗigol coming nga kac nga mim fo foten dorong lafta ka ya olom coming ni tata am um, uh, tubabu jara ruto idunta docteur o kang bata tata momo ya dorong yi futata je dorong ka marie ko um, nkungale kandimi na marie jibe dorong aman hani fewo fenke ya ko e ko uh, kundimo nyin ye malaria le soto imanya na kala wala woning aning aning mo fin silo mang mang nyu e jam nyo la fang aje ko ye mo fin silo ta e kumfa nun te le tamandi wo, wo, wo silo la yinyanta ka mari jelo tale ya sambala ya jube bayri malaria ku min ka sabu jankaro bi jele adu nga machine to tale mi lon ke ka wo jankaro li tandile ta ka wale ke amari ya samba ya jankaro be fo ya a jankaro je minil be do ko la lab ya je ko jankaro nyin malaria jankaro lon pour isa mari eh, makoyno pour ala jata kende asoto bari nin ka fo mo lelo doron pour isa ham ko nin tata l'hôpital on tata docteur karia a ñanda ka ñin ke pour sa faham kon tolla on nka lon di toñale kan lafta ka wo fatam fansole nati doron wala be nambe ko mo sembentu yala nga min cha kono docteur I think if we follow this, uh, this topic, we can go on and on and on. I'm thinking of so many things to talk about, but I think we have to stop somewhere and, and, and, and move on. And uh, I am going to now um, introduce um, a segment that we have taken in the population where we went out and uh, we talked to people and asked them what they understand about some parts of the health system and, and that was taken. Um, uh, and we want to show that segment before we come back uh, mbokk yi um, si lii suñ ko toppoon nag waxtaan bi ni léegi nii dinañ dem a dem a dem di waxtaan ci lii lu yàgga yàgga xam naa ni suñ nekon ne sa am nañ ay téléphone ak yooyu noonu léegi nii di kon nit yaa ngi commencé di call dina nekk waxtaan boo xam ne sax débat la moo nekk debate la moo nekk boo xam ne kii ne lële kali na lële uh, waaye lii lu tax ñi ko wax rek mooy pour jéem a xamal nit yi um, naka la mbir yi war a demee pour ñoom tam suñ demee uti ñu seet naka la demee waaye ni ñoo def rek léegi nii pour mun a wax nit yi ne ndekete lii lu am solo la pour waxtaanee am na ñu ñu yónni woon ci yoon yi ñu am ñu ñoo waxtaanal di leen laajte lan mooy eh, docteur lan mooy noos ndekete ñun luñ fogoon ne loolu la loolu la mooy ne ñu bëri understanduñ lan mooy docteur lan mooy nurse ko su Mariama waxee rek dinañ leen bàyyee vidéo boobu noonu ngeen jis ko ñu door a dellu si waate fii waxtaan ak yéen ci loolu mbaɗi walla mbe kaca mbe kacalon dila jande kato ñing kumol ngalon ko nin continuita dorong ate bandam mbe kaca sambalale dorong ate bandan te dandula kelando wala bare aɗu ngalon ko ningatara continuita fana ngaw layno bulamoli dorong kumandiroɓe kela ñinin karoɓe siyale aseke kaca jantin pite min kumbannano bari dunta sate kono ye mol bula bulale dunta sate kono kam mol ñinin ka ila londola um, minom docteur oti munam no soti ni tata no to minil be do kola je ila do ko mo muneti yara fa ngamira ko mimmu mol ma faham say vidéo video bulala je dorom pour mol ya jibe mol la dankuro keta nyami bidin dunta sate kono ke nyinin ka nyin nyinin ka rolla munem doktoro la la dokoti anin noso la doko docteur ola do ko mu mente wala mu ko ay borkendo ni mo sasara nata je aya wiste a jibe munabe take a baljato bala dena sina boro diala me alon ko ino ay wole ja ko ay wole nyanta la sasanye jarala what is the difference between a nurse and a doctor well a nurse is the one who treats the patients whenever they are sick and a doctor goes beyond what the nurses do. Nafa naka different nurse ak doctor defe ne nurse ak doctor ah, doctor mooy ah, du ma mun a wax difference bi that much because am not a medical person waaye xam naa daal ne am na a lot of difference. docteur ak nurse docteur moom dafa mun a docteur moo laa check nurse moo laa defar comme fa soo gaañoo ak yooyu noonu boobu nurse bi moo la war a mun a regle ak jigéeni biir yee yooyu waaye docteur moom comme nga ñëw ak sa feebar docteur bi moo la war a check si man lu ma foog su ma expérience ak suma xalaat. loolu laa foog ne docteur bi dafa la war a check bi xam lu jot nurse mom is there to help. la different doctor, ak nurse. docteur ak nurse. waaw <laughs> waaw yëpp benn la yëpp benn la kay docteur ak nurse. what is a doctor and what is a nurse. Why, like doctor like for a doctor like um he is the first and last to give any mandate or command for any patient or any illness, he is the man or he is the person who give you the right source that this is the treatment you have to take, this is the treatment you don't have to take. Like what is a nurse? Like for a nurse, what I understand is a uh, nurse, they are the one who are doing the job. Yeah. The doctor will tell you that this is the patient, this is what he's suffering for, this is what this is the treatment you need to give this patient, him or her. Yeah, that's what I understand in nurse because Thank you. From school days, that's what I understand. Welcome back. Um, and uh, it was not supposed to be a funny piece, but it's a really a very, very funny piece. You know, uh, Korka, there's something about him. He, he's a real comedian. Sure. He, he's somebody that he doesn't need to do comedy for it to be funny. <laughs> and I am sure if he was the one asking me the question also, sure. I will probably laugh and laugh before I even try to answer his question. And we have seen how he has interacted with those people. And uh, it is very obvious uh, that, that, that people are confused. Some people have an idea. Uh, a lot of people are confused. They don't even know what is the difference between a doctor and a nurse. And that is the beginning of the whole thing. And that is why I think it is a justification for us to stand here today to explain the the the system to people so that they can understand it eh, mbokk yi eh, lu ma doon wax rek léegi nii mooy ne eh, Korka moom macha allah jàmbaar la ñu ngi ko gërëm bu baax a baax si lum ñu dimbale nii waaye moom nag comédien la nekk na koo xam ne su waxee rek su bugut reeloo nit yi sax dafa reeloo nit yi man bu ma ko dégloo léegi dama ree ba tas waaye lu lu lu lu doon di lifin rek mooy gis ngeen naka la laajtee nit yi lan lañ xam ci noos lan la lanay docteur lanay noos. Euh, ñun ñëpp gis nañ ne ndekete waxtaan bi waxtaan bu am solo la parce que nit yi understanduñ ñum laajte ñëpp soo leen gisee am na ñoo xam ne am nañ tuuti understanding am nañ ñoo xam ne amuñ understanding bu bëri moo tax euh, important na torop euh, pour waxtaan bii nii jóg xam naa ne su Mariama faram-fàccee lii rek nañ ñëwaati léegi gën a dugg a xuus si biir tuuti rek. ngam nga faale ñamindorong komin mool dunta saati kono le aliye korgajele um, ay dunta saati kono ka mool ñinin ada adate ka mool ñinin ka ñamin ngale janni ba jaabi la fango jelo be faala je jele jani e ka e ka, e ka jaabiro bari aliye mool la dankur ñaaje le kabri ye ñinin ka dow kuulal min ka tara l'hôpital no bundato eka eka jumal lomiti ngamol jele yara fon dol ya lon ne dol wal wal wal wal ye ye hakilo soto jele ya lon min bar dol wal malon at ola tola tola tol saying am um, uh, mbe mbe mbe nyine tula je dorong comme molla fa londo londo am um, do kulal a l'hôpital no kono am mangwara wala tinna tina kumaya ta bakele pour nga nyin kacha natinang pour mol sa fa ham ni tata l'hôpital no to nyinom karla do koti ani nyinom karla do koti kato do je kata no kono do mobe lab moy nga koy ko man anka docteur karla nyin nyininka yara fa wo manke docteur oti mom fatam fan solong am um, be kacha fenkalaten e eh, dandila jang ning parita ning, do, ning parita docteur be dunna kacha kono bake nse mol fa ham ndingi londrindi doku ay eh, jata doku bunda mol na munete doctor thank you very much and uh, therefore um, uh, it is good now for us to tell people when they go seeking for help in the in the health system they are not going to one person. You are not going to people usually say, oh, I'm going to see Dr. Jay. You're not going to see only Dr. Jay. You're going to see, well, Dr. Jay is the team leader, yes. Um, in, in, the, in, the, in the conventional system, the doctor is the team leader. In any system, there must be a team leader. But we must always remember that it is a team okay there is somebody who is the team leader the doctor is the team leader um, is the one that is coordinating everyone but there are members of the team that work with him. So that is very important. And therefore, knowing the doctor, you must also know the other members of the team. So what we will do now is since we have asked the people in the public what is a doctor, what is a nurse, and they have tried to answer us, maybe we'll just go straight to some of our colleagues. Uh, we have interviewed a nurse very briefly, and we have interviewed a doctor, and we will just show you some excerpts of uh, what they have talked about uh, so that they can uh, we can try to understand i think these programs are not long enough for us to go through the whole details but so that we can try to understand what uh, what a doctor is and what is a nurse mbokk yi lu ñoo wax rek léegi nii mooy ne uh, ndekete um, uh, niti yi understanduñ definitely understanduñ bu baax baax lan moy doctor lan moy nurse waaye lu ma leen bëgg a wax rek fii nii mooy ne su nit di dem ci lopitaan na fàttaliku always ne mu ngee dem ci loppitaan bi pour faju ji suy faju ji nag na ku tamit ne si ñu moo fajoo mu ngi am boppa mu ngi am koo xam ne moo nekk ci boppa bi kooku mooy docteur bi ñëpp ñoo gis ne ñu ngi liggéey ci loppitaan bi su nekkee ne ci théâtre bi la ñu ngi opéré wala su nekkee ne ci clinique bi la ku nekk ci boppa bi mooy docteur bi ok moom moo moom moom mooy moom bi waaye dafa am ñuy liggéey ak moom ñoo xam ne ñoom ñëpp dañ fa war a nekka ñoom ñëpp dañ war a def seen liggéey pour liggéey boobu mun a set su nekkee ne am na koo xam ne defut liggéeyam foofu noonu rek liggéey bi du set so nu ñoo def léegi nii rek mooy su Mariama waxee ba pare dinañ leen joxaatee ñaari vidéo yoo xam ne am na ñu ñu waxal ci ay different lopitaan um, uh, am na docteur bu ñu waxal ci benn lopitaan am na beneen docteur bu ñu waxal ci beneen lopitaan am na noos boo xam ne tam wax nañ ko mu wax ñu tuuti rek si lan mooy noos nekkul loo xam ne nag dinañ ci mun a dugg xuus si bu baax baax parce que time du dee am pour loolu noonu waaye dinañ ci dugg tuuti rek pour jéem a understand al nit yi ne loolu lu ñu war a understand la parce que sax baax na soo demee ci doc si loppitaan nit yi di la faj wala nit di la faj nga laaj ko yow lan mooy sa liggéey. ndax docteur nga ndax nurse nga ndax nda yow pharmacie nga pour yow nga mën a understand koy fajoo noonu naka ngay fajoo ci moom haɗigol ali ah, ya jiibe kam rek aliye théâtre o ñin jiibe ani ñininkarol mini keta sati kono aliye molla jaabiroje le biri ye ñininka jumalon docteur oti ani jumalon nurse oti bari ama ah, um, dunta ama ah, um, uh, ñininkaro kono uh, ŋeto ñininka yela londo daŋole fo ye miŋ faham ko ñinom docteur oti ani ñinom um, um, nurse oti ban bota je en tata l'hôpital car ay eh, l'hôpital jamal fananto nga docteur fula ñinin ka ila do ko minti wal fana ya fanya ani nga nurse o fana jale nga ñinin ka ate fana na do ko minti ate fana yo fanya me ñim fulol jubé la mol se karanke je bake a kacha ñing ko kombe dunna ko no bake bake nta bannano bari lafta dorom pour mol ya faham ko ni tata uh, l'hôpital noto momo ke jara ye ye droit sotale pour ka mari ñinin ka itela do ko minti pour isa long minil ke jara ila e nyata ka minke ya aning ila do ko minti mbe mba dana jang aliye ma o docteur ol min ya long aning no so mi ya long kon dunte kan ngi tol ñinin ke ila do ila do ko la ali tol juwe I'm Dr. Alajmani, and I'm a surgeon and also the head of the Gambian uh, medical officers in this hospital. Can you tell me your job description? Yes, thank you very much. As uh, head of the doctors, uh, we have a lot of uh, uh, responsibilities to make sure that the hospital works within 24-7, non-stop. We also run emergency services at the ALE, Accident Emergency Department. Uh, we also run clinics, both at the surgical outpatient, and also we, as you can see, we are inside the theater. We meet here for emergency uh, operations and also elective surgeries. We also do daily ward rounds, that is to look at our patients, those who are admitted, those who might need operations or discharge, and how their progress has been over the period of admissions. Uh, we work as a team, but every doctor makes their independent uh, diagnosis you know, to help patients. Thank you very much and Happy New Year to your crew. ite be ngune tijang? Nde bo odile tijang chief odile no. Okay. Uh, ite as odile ni tata aliya. alla yamol ni tata jela holiday la alla al yamol e ka jikile ka fo e be uh, natile le fo. ah bari because ni di ka ye n'o je isele ah ka welcome back. Um, uh, this was a very serious discussion. It's a very brief discussion, as we said, uh, from our colleagues, and we thank them very much for uh, allowing the interview to go through. Uh, and I can see that at some point you were working as a as, as, as, as, a journalist and trying to uh, to ask question them, which is uh, quite uh, interesting. but I think one of the things before we conclude, because time is running out, we're going to come these next two or three programs. We'll be talking about this topic where we will go into more details about the other people that are working. but today, I think after this, we will we will conclude it. but basically, we can see very clearly that it is teamwork um, in the hospital. It is not only one person. And uh, I don't think one person is even more important than the other person. It is not, um, uh, I, don't, I don't buy the idea that the doctor is more important than the nurse or the nurse is more important than the doctor or it is just a teamwork. Everybody has their role to play and everybody should play their role, including even the cleaner that is working in the hospital. I mean, if I am in a hospital that is dirty and I want to work, as the doctor, it is going to be impossible for me to, to, to do the work that the cleaners are doing or even to do it as well as them you know and, and and it is not that i'm more important than the cleaner or the uh, cleaner is more important than me but we all have our role so people should realize that it is a team uh, people should realize that going to the hospital also is not going to be a quick thing you're not just going to go and enter and come out. Like you go to the uh, uh, traditional healer and enter the room and you tell him your complaint and he tells you, oh, I saw it in a dream yesterday and this is it, go and do this, go and do that, go and do that. It is not like that in the hospital. Uh, things have to take their due course and people have to be ready to go and spend time to go and know that they are going to have some tests done um, uh, and also um, uh, given that before they are given their treatment uh, so mbokk yi uh, lu ñoo wax rek uh, mooy ne ndekete léegi nii luñ war a xamee ci lii mooy ne lopitaan ku faa dem bu mu foog ne benn nit rek la moo dem gisi ku moo gis noonu tam ku tax mu jóg di dem di dem noonu kooku dafa am ñoo xam ne dañ koo dimbale te ñooñu yëpp bàyyi foos ñu nekk fa man mii nga xam ne docteur Dia soo ñëwoon gis ma ci lopitaan lopitaan baa nga tilim amul ku koo defal kon kon kon du demee nu mu war a demee parce que léegi nii dafa am koo xam ne dafa war a setal place bi kooku bokk na ci liggéey bi dafa am koo xam ne euh, war na laa dugal sa tur ak noonu kooku bokk na ci liggéey bi liggéey bi moo def man su ma ko trayoon a def xëy na du ma ko mën a def moom nu mu ko defee moo gën a important wala docteur bi moo gën a important nurse wala nurse bi moo gën a important docteur bi ñoom ñëpp ci liggéey bi lañ bokk ñoom ñëpp dañ leen war a respect ñoom ñëpp tamit euh, ñu dugga ci biir liggéey bi dafa mel ni nag time mu ngi ñëw dem si xam naa su jeexalee luñ doon di wax nii rek euh, ñu tàggatoo nit yi ñëwee dinañ dugg ci yeneen euh, euh, euh, profession si ñu wax ci yooyu noonu tamit ñu gën a understand lii nii foog naa ne vidéo yooyu ñu wane ci mbedda bi wane na ne ndekete topic bii nii am na importance moo tax dinañ ci xuus tuuti maybe beneen programme wala beneen programme at itam mu nekk ñaar wala ñetti programme yoo xam ne ci lii rek la ñoo waxtaanee comme nuñ ko dee promise rek maa ngi ko promise nag fan yii yëpp mooy ne xam naa dinañ am forum boo xam ne dinañ am nombre boo xam ne ni dinañ si mën a teg seen laajte ak yooyu nga xam ne su ñëwee ci beneen programme dinañ euh, dinañ joxe nombre yooyu noonu pour nit yi di mën a wax seen laajte ñu gën a mën a dugaa nit yi si ñoom lan lañ bugg a xam ngol aali a jaño amin doron komin lafta mooli ya faham ko ning atari itata lopitano kay kata ke katamo kilinaya komin ngi wulita ye docteur jat moy e doron itata e koy kata lopitano to ala lopitano to amanke koy kata docteur jat doron ɗaya docteur ja e molle soro mi yalon ko ka kafu ka dokuwo ke la a kamata ko itata je doron mo mo kummayata je le mo mo yela role soto momo yela dokuwo le soto i kam minke je ni tata lopitano to jebe noring doka ja adda mate dokuwo kala no e, e dula noring oto ni tata je fo e futa je mol dol bije wolbe mala ring doron nella mo dol bije ni tata wolbe mala ring doron pour lopitano la la, la, la, la tanko ni dunta je fo ye tawol momo yela dokuwo ke pour dokuwo sita no anyama um, ka min fo mole doron wato mang siya adun lone ko mole nyin min je nyin karo min je e karango ke je nole pour ka faham lopitano doko ka ke nyamin um, euh, doka ka meta la hido kala le comme be line ol yele le pour mol se la nyinin rol text no le mbate se ro ke no le bari wallahi hido mbati mandila le um, oh, be kacha nyin be be continue la le katu ko nyim manke kacha te mi alon kon sa danno janne akacha lo mi alon ka jam fo batale adung nin ko mba be fola jang dorong nte o kala no bari programme ba mbe mbe mol la hido la ko programme koteng min kananang mbe kacha nyin continue la jele pour mol la londo se kafu ni tata lopita noto dorong karla do ko mo minti momo la do ko minti sa faham ko mo killing buka lopita no samba docteur o kake kuntiyoti le barate buka lopita no samba adama ay molle soto mi yalon ko e kala do ko sembentu ya pour momo tata jararo nyini je dorong isa soto Uh, thank you very much. So I think uh, we will only have to say goodbye to our dear listeners and promise you when we come next time to have a complete, try to complete this discussion. mbokk yi foog naa time bi léegi nii ninyo na uh, waaye ni ñoo def rek mooy tàggu leen tey uh, dig leen ne suñ ñëwee dinañ continuer waxtaan bi waxtaan bi jeexagut uh, fooguma ne sax dina jeex si next programme bi waaye dinañ continuer waxtaan bi nii ba bañ koo jeexalee ñu try tamit nga xam ne ñuy doxal lii nii dinañ a indi nombre boo xam ne tam nit yi si ñoom seen bopp dinañ ci mën a duga euh, ba beneen yoon ñu ngi leen a tàggu tey jërë ngeen jëf si déglu bi um, badiŋol watu mon so bake um, kacañing ba kuntula janle to komi ngalla hidi ñamin doron Nya, um, uh, programme koten anin programme jamal mini kana mbe laynol yele la mool yele e kumandiro ke o mool se texin ke nole ngela ka texin ye min tex nga karang pour nga kaca continue inta danna no jam bi bari uh, ning ning programme koten doron mbe dalik ka dalika kalyo ñami loku wo loku mbe kacañing la le pour nga mool hakilol continue ka yurwandi ñing ñing do ko wasilo ka kenyaming ala baraka fo loku koten thank you very much dear listeners uh, jërë ngeen jeff uh, beneen Benenyon, ba next week.